Sëriñ Abdou Lahad dafa am lu am solo lu ñu waxoon ba ñu demee Touba ca ngan gam fa woon sëñ Cheikh daf waxoon ni yéen waa Tiwaawoon kaay leen jël si seen dono bi nekk tuuba waa tuuba dem Tiwaawoon jëli seen dono amul lu ko gën a rafet loolu mooy dëgg ko defee ku nu ci tudde bés ci ñoom rekk dafay nekk lu am solo ci ñun ñu di ko bége waaye